fi ay baykat ñoo fi nekkoon ay sàmmkat ñoo fi nekkoon ñëpp dëkk dans la commune de Diamniadio di fi am seeni teraanga jamono di dox jamono di dox dégg nga ba mairie bi daal di ñëw ak des promoteurs def fi lotissement pour la population de Diamniadio l'État est venu immatriculer les terres bi mu ko immatriculer pour utilité publique dégg nga

bi ñu aussi le maire xamal na leen ni ne souci président de la république dafa ne nañu jël suuf ñu population bi surtout que boo yoo xam ni jaarul ci collectivité territoriale mais dañu fan passé dans la semaine dañu am fii lu ñu sur instruction du commandant bu DSCOS bu Tëngéej dégg nga waa Grand Moulin dañ fi ñëwaat dégg nga ànd ak ak agent ñëw ànd ak ay bill

Grand Moulin ñoo leen fi mais duñ leen bàyyeeg suuf si ñi fi dëkkoon dégg nga dañuy ñëwaat dëkkaat fii te Grand Moulin dañ koy poursuivre dañ koy poursuivre en justice